ay ci bokki Sénégal comme niñ koy faral defee saa su ne fii seen télévision bi nga xam ne bii askan yéen yéen ko taabal seen bopp saa su ne ngeen toog di teewlu ñu dikk ak ci yéen li nga xam ne bii ne moom mooy li xew émission bi nga xam ne bii ne maanaam mooy li xew li xew buñ ko waxee rek am loo xam ne bii ne dañ koy daal di joxoon buñ ko joxoon nga daal di ca toj ca taxaw jën kenn ci koo xam ne dund la lool wala ma ngay dund am am na ko mu xam kuy dund lool bu ko defee ñu toog ak moom waxtaan ak moom faram-fàccee moom ci loolu nga xam ne bii ne moom mooy li xew actuellement nag li xew ñëpp xam na gis nañ ko ni carrément fii ñu nekk mu di Sénégal jeunesse am na ñoo xam ne bii rek ñii ñu ngi jëm gaal ñii ñu ngi jël yoonu ñu ñii ñu ngi xeex ñii ñu ngi taal ñii ñu ngi lakk kenn ku ne am na loo xam ne bii ne yaa ngi def te lépp maanaam ñi ngi joxoon ñi nga xam ne bii ne ñoom ñooy jeunesse bi kenn ci ñoom mënaat koy dal koo xam ne bii ne doorkaan la mën naa ni daanaka biñ ko bàyyee mu génn ci prison yàggul ndax daanaka xeexoon na lakkoon na am na lu mu doon dund ma ko tey dama lay dalal fii ci télévision bi ko defee nu waxtaanee ba faram fàcce ba toj ko bu ko defee yi xam lan mooy problème bi maa ngi lay nuyu la jox sa ak sénégalais yi nga xam ne ñu ngi toog di ñu seetaan. bu baax. jërëjëf. Eh, ñu rafetlu émission bu baax a baax. ana lan moo waraloon nag sa coow ak usine ba nga xam ne bii ne yow nga fa liggéey. loolu loolu ñu waxoon. Mm-hmm. man maa parce que réew mi métti na métti boo xamante ni mhm. ñun ndaw yi jàng nañu am suñuy diplôme mhm. di liggéey mais mun ñoo am liggéey bu baax mhm. entreprise boobu ma nekkoon aw ma fa contrat. boo feebaree yaay faj sa bopp. ñaata at nga fa ñaata at. def naa ko dix ans. billaay ndeysaan ay waay jeunesse yi dañuy sonal jeunesse yi ñu ngi bëgg a dee xoolal li dëggal. te yàlla xam ne li ñuy fay mu ñoo satisfaire dañoo doon ay ay bañkat rek bëgg ëllëg lu ñu amal suñu bopp. mais léegi yéen bu ngeen di liggéey ci entreprise boobu tey ba am ci accident yàlla tere nan ngeen di def. ñooy faj suñu bopp. bi du leen jël en charge. déedéet moo tax nag ñu bëgg ngeen dimbale ñu moo xam président bi fi nekk ak ki koy wut mu jàppale ndaw ok parce que bëgg nañ la ñu am nag. Mhm. ku xam Sénégal xam ne ci jom la ñu xam ñu ndaw ñu mosuñoo yàpp mosuñoo dox ci dara violence dañoo bëgg nag lu ñaaw ba tey tey ni may wax ak yow nii su ma gisoon yoonu daal damay dem ndax yow mi mel. déggal loolu rek trois mille francs trois mille francs trois trois mille francs doo am rek rek c'est vrai mënuloo si am retraité mais entreprise bi entreprise u sénégalais la wala entreprise su tubaab la entreprise sénégalais la te sénégalais ko moom ci boppam da ko moom milliardaire ba pare bokk ci nguur ah. ana yow ji nga xam ne bii nag par exemple tey ñooy jël gaal yi jaar ci ndox bi yow en tant que jeune maanaam ñooñu yow lan nga leen di li ma leen di conseillé mooy du xaar bëgg loo amal sa bopp wax naa la ko léegi suba suba su ma amoon lu ma ko ma dem parce que na mun ñoo dimbal suñu yaay mun ñoo dimbal suñu papa yi yow xam nga nekk si réew ñi dem jom dëgg moo leen yóbbu. non neexul boo neexul waaw booy vraiment wax nga dëgg nag booy non dëgg ngay wax nag. non dëgg ngay wax booy ala na seeti tum ko gom ah a ah, haali goma kay nga jël gaal bopp nga xam ni mënoo fii mais risque boobu tamit day daal doy waar ku ci xamul ne booy dem sa bakkan fa des doo dem waaye yàlla rek mooy yàlla dañuy wuti ngir am liñ ci fekk ñu xam ne loolu la yàlla moom mais de la jeunesse ki nga xam ne mooy ministre de la jeunesse moom mën nañ jàpp ne amul benn infrastructure lu ñu gis par exemple lu mu jàppale jeunesse bi. mais loolu ñun ay dégg rek lañ ci am. Hmm. mais ba léegi ñu daan wax daaw rek ñuy wax rek gisuñ ci suñu bopp daal. gisu seen bopp ci ministère la jeunesse. gisuñ sax suñu bopp ay Sénégal yéen ko déggandoo. jeune la bien déterminé am dooleem di liggéey yor ay waajuram yor. mën naa ni famille am ñu bari bari topp ci gannaawam yaakaar ma ni kilifa mu nanu jàppale seen si nanu taxawu seen dem ci gaal yi metti dem ci Nicaragua gi metti na dem feneen ak feneen metti na ndax lu ci bare bari bakkan lay laaj. émission yëpp nag seen émission bi moo gën a am solo bi bii moom nit ñi dañu ko war a xool. Oh, sama gars yi ni ma ko faral di waxee rek saa su ne ma jox leen dox daje incha ci beneen plateau fii nga xam ne bii nag mooy sama télévision bi nga xam ne bii nag yéen a ko taamu seen bopp nee naa leen fii rek lay xewee ci biir xew ci réew ba beneen gi dama fiy nga lu que gis di nekk ak ñoo xamante ni wala di nekk ak ñoo xamante ni juguñu bu yàbbee ma bu yàggee dañ lay détourné te détournement de mineur laay bañ man mineur laa xaw ma dara ku ma détourné yàq ci sama àdduna yàq li nag comme que yéen vous n'êtes pas des professionnels te moi je veux rabbi un professionnel incha rabbi léegi nag bàyyi la ma ma dem ci man daal ma saraf ko ngir yàlla jël ma te yàlla rek. yow de boo dem maa ngi yooyu am. jëm yow. foo jëm doo ma bàyyi ci gëb dëgg yi ma jukki fëgg jaay di teg. waaw xam nga dégg nga ma de. bu nekkee da nga topp bindaale seet sama teg fii nii te xam ne boo dugg ci kër gi ma la yàq. pàcc mooy doon kon royante mooy doon. yow boo duggee ma sar ba ci biir bon bay bëgg a dee. yow jàppaguñ la a ànd ak nit ñu ngi ñaanal la ngay jugee loo dëkk ba ñëw ci seen fii nii ñu ngi ñaanal la yow xam nga ne boo demee ma topp ci sa ginnaaw ñàkk fay.